ñuy njëkk woo ndaxte xam nañ ne duñu gànt lu manu suñu blaat nag dañ koy askan laa waxoon ne bokk na ci liy àndub yàq santaane luñ mënul sàkk lu mënuwul wala bañ luñ man moom nag du gantu lu manu euh, kon ñu ngi koy santaat bu baax a baax yeesal sant gi te di ko dalalaat tey nag mu teewaat fi ngir waxtaan ak ñun euh, ci tomb boo xam ne bu ama am solo la comme ni ngeen ko xamee am na borom bu xam bu mag a mag ci borom xam-xam njëkk ya yàgg ya boo xam ne da doon wax ne léppay soppiku ba mu des soppiku soppikoo dul soppiku kon soppiku ci dund gi la bokk soppiku googu nag li muy ànd ak dund gi yépp am na ci mbir yooyu ci dund gi soppiku du fa jëm mbir mu mën a doon la nga xam ne moo tax mu doon lam doon mënut a soppiku ndax bu soppikoo doon na ci mbir ma moom la ñuy wooyee ci niñ ko bindee ci thème bi nga xam ne moom muqaddamatu xidma tànn sawaabit wal mutaxayiraat ci yoonu murit li tax ñu naan yoonu murit li nga xam ne bu ca jógee murit gi am lu ca manqué wala doonatu murit gi loola mooy yi nga xam ne mënut a soppi ko li nga xam ne nag da caa joox mën na koo rafetal wala sax mën na caa génn mooy li xam ne soppi ko mën na caa yooyu moom la suñu seexu naa di waxtaan ak ñun tey xam naa duma ci guddal duma ma ci jéem lenn dul rek dama koy jox kàddu gi ñu maase diglu ko ndax xam naa bu ñu ko digloo dañu taataana njëriñ lu bare bari suñu seexoon a bisimilah bismillahi arrahmani arrahim alhamdulilahi wa kafa wa salaamun ala ibadihi alladina astafa assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu noo ngi nuyu mbokk yi fi teew yépp ak mboolem ku sunu kàddu di àgg fi moom ak fu mu mën di nekk di ndokkeel ñépp ci koor gi nu nekk ba sori di ñaan yàlla jàpp leenu ba nu àggale ko te li weesu ak li ci des lépp itam mu nangul na lu nu ci def ci lu baax jéggal nu itam lu nu ci am ci ay rëcc rëcc jotaleenu ci yiw wi mu ci diggee wépp fekkeloon waat nu ko ay yooni yooni yoon ci ak wér akuk tal ni ko sëriñ Modou waxe kon waxtaan waa ngi jëm ci yi dul soppiku yi nanguwul soppi ak yi nangu soppi ci yoonu murit ci murit gi yi nanguwul soppi ak yi nangu soppi ci murit gi loolu ku ci waxtaan dana njëkke wax lu jublu ci nangu soppi ak ñàkk nangu soppi yi nanguwul soppi mooy yi nga xam ne dañu leen a war a téye dañ leen war a téye téye leen jamono ju ne ak bërëb bu ne jamono ju mën di doon ak bërëb bu mën di doon ñu téye leen bañ leen a soppi yooyu ñooy yi nanguwut soppi yi nanguwut a soppi yi nangoo yu nangu soppi nag mooy yi nga xam ne bërëb bërëb mën naa laaj ak coppi am ca jamono it mën naa laaj ak coppi am ca manees na koy def bërëb bii waaye dem beneen bërëb nag bërëb booba laaj moom coppi am ca niñ koy defe ci bërëb bee mën a wuuteeg niñ koy defe ci bërëb bële wala niñ ko doon defe jamono sàngam mën a wuute niñ koy defe ci jeneen jamono loolu mooy li nga xam ne mën naa soppiku yi nga xam ne nangu na soppi yi nanguwul soppi moom jamono yu jiitoog jamono yuñ toll nag jamono yuñ jëm yépp duñ soppi nañ koy defe béréb bu mu mën di doon lu tax ñu soppi nañ koy defee kon loolu lañ jublu ci bu nu waxee li nangu soppi ak li nanguwul soppi muy nag lu jar a waxtaane ni ko sëñ Modou junjee ndax mbir mu ne ni ko waxee rek mbir mu ne munta ñàkk loolu soppi du ca jëm ndax mooy tax mbir ma doon lam doon bu ca soppi amoon rek day doon leneen lool mbir mu mën di doon loola da cay am waaye mbir mu ne yit mën naa am lool mënees na caa soppi te du yàq dara du tey mbir ma doon lam doon loolu ak wàll la guy wone waxtaane lu mel nii ni mu ni mu amee solo ci mbir mu ne lañ koy war di seetlu bu ko defee buñ ko seetloo ci murit gi nu xam ne kon lu jara seetlu la lu ci jara seetlu la leneen luy wane solo si mooy ne wooteeb sëñ bu mag bii a Cheikhul Xadim radiallahu an wooteem bi lu woote bopp ñim jamonoon teel rekk a tax a jóg rekk ko tax a jóg lu woote bopp ñi mu nekkaloon rekk ko tax a jóg kon du woote bu tënku ci jamono du ñim jamononteel rekk ko tax a jóg du woote bu tënku itam ci bërëb du ñim nekkaloon rekk ko tax a jóg woote bu mel noonu nag dana baax ñu xàmmee ca la ca nanguwul soppi ak la ca nangu soppi ndax la ca nanguwul soppi jamono juñ ju mën a nekkit dañuy xam ne loola moom du du ca du ca dañ béréb buñ ko mën di yóbbit dañuy xam ne loola du ca dañ li ci nangoo soppi nag nu xam ne moom bërëb mën naa waral coppi am ca jamono itam mën naa waral coppi am ca kon woote sëñ bi ni mu bindoo gën naa tax waxtaane lu mel noonu ci wooteem bi doon lu am solo te mooy li mu tënkuwul ci béréb tënkuwul itam ci jamono ginnaaw nag yaar yi mënuñoo ñàkk ci mbir te ñu leen jaawalee walla sax ñu sàggane leen mooy bañ cee bàyyi xel ba lu soppi wërta jëm ñu jëme ca soppi walla lu soppi mën a jëm nu jàpp kenn wër koo soppi yaar yooyu luñ ci def rek dana jur lu gënut bu dee lu soppi wërta jëm nu jëme ca soppi loolu moom li sëñ Modou waxoon lay jur mooy day tax ba mbir mi du nekkati far lam doonoon du doonati lam doonoon koo xam ne taxawut taxaw bu dëgër lu ñëw mën na ko yóbbaale day mujj far moom du amati du amati day mujj doon leneen lu dul lam doonoon loolu mooy bu fekkoon ne dem nañ ba yi soppi wërta jëm nu jëme ca soppi waaye yi soppi mën a dugg itam buñ demoon ba bañ ca soppi nga xam dañ ne daal mbir yi daal ni mel rek la war a mel te muy lool moom soppi da caa mën a jëm soppi sax da caa war a jëm loolu la muy jur nag li ñuy wax ak tëju ak tëju lay jur ak tëju ak tëju jur euh, te tëju gi bu amee kon woote bii nu wax ne jamono tënkuwul ci jamono tënkuwul ci béréb bu boobaa dañ koy tënk boobaa dañ koy tënk ndax li war a soppiku bu buñ nanguwul ma soppiku rek dana am ñoo xam ne ñoom duñ ca mën a bokk ndax duñ mën loola te loola dëgg-dëgg bokkul ci woote bi anam ga anam ga doonu lu taqoo ak woote bi kon loolu lépp day wane ne waxtaane lu mel nii lu ko jarala la rawatina bu fekkee dafa jëm ci woote sëñ bi te mooy murit bu nu bëggee dugg nag ci yi sàppi warut jëm danuy wax ne ñetti wàll la am na ñetti wàll yooyu euh, sàppi waru caa jëm wàll bu njëkk gi mooy liñ mën a tudde reen yi reen murit gi ay reenam ay fondement fondement yi soppi du jëm ci jëmmi fondement yi du am buñ ci dindi boo xam ne mën nañoo dem ba jëm jamono sàngam ñu ne ah, bii daal mën naa dañ wala ñu ne béréb sàngam ne ah béréb bii daal laa laajut lii loolu moom mënut am ci reen yi mi fondement yi li ñuy tuddee ponk yi itam noonu la deme moom it amu ci lan lool jamono walla béréb dana tax ñu mën caa soppi dara ku ca soppi rek mooy daa bëgg a nekk ci leneen lu bokkut ak murit gi ñetteel bi mooy li ñuy tudde mën a tudde ay cëslaay cëslaay yi itam noonu la deme bu dee reen yi fondement yi sëñ bi biñ ko laajee gouverneur moo ko laajoon gouverneur général moo ko doon laaj daal aw yoonam nu mu demee te léeg-léeg mu laaj ko moom mu tontoo ko neneen ndax laaj bii da koo laaj ci kan ci kan la yoon wi sosoo ci kan la sosoo loolu la ko laaj waaye sëñ bi ko ci kan la sosoo waaye lan moo ko sos la ko tontu mooy reen yi reen yi la ko wax da koo laaj ci kan la soso fii man taassasat anhu tariqatul muridin ci kan la soso waaye sëñ bi moom bi mu koy tontu dane ko reen yi dem ñooy nangam ak nangam ndax dëgg-dëgg moom ni mu ko déggee mooy sosowut fa yàlla la jóge waaye sosowut ci ak nit bañ naan ci diw diw sàngam la soso reen yi mu ne ko mooy al imaanu bi tawxid wal islaamu bil fiq wal ixsaanu bit tasawuf ussu tariqati al imaanu bit tawxid bil fiq wal ixsaanu bit tasawuf mu ne ko yooyu ñooy reeni ñooy reeni yoon wi ñooy ay fondement kon mooy ngëm ngëm goo xam ne ci xam-xamu tawxid lañ koy jànge ak di jëfe ndigali yàlla yi tey bàyyi ay tereem te loole ñu di ko jàng ci xam-xamu fiq ak di rafetal jëf jooji yi di rafetal jikko yi di rafetal xol yi te loole ñu koy jàng ci xam-xamu tasawuf sëñ bi wane na yett yi ñooy reeni yoon wi reen nag munta ñàkk ci mbir bu ñàkkee ci mbir rek mbir ma nekkatul lam doonoon ku amoon garab bu xëyoon ne day dagg reen yi ngir rafetal wala jekk-jekkal lu mën di doon ah, la cay mujj rek mooy mu ñàkk garab ga ci boppam kon yii sëñ bi wax moom ay reen lañ ay fondement lañ yooyu ñoom soppi jëmu ca soppi jëmul ci ngëm ngëm gi nga xam ne ñu ngi koy jàngale ci taw ci xam-xamu tawxiid lañ ca yàgg a jàngale ahlu sunna di ko jàngale mënuñoo dem a dem bane liikat lii bii moom mënees na ko mënees na ko fee mënees na cee bañ mën nañ ko mënees na ko cee bañ boole daal ci béréb bii wala ci jamono jii bu dee ci fiq bi noonu lañ cee jàngale te muy won nit ki ni muy toppe ndigali yàlla yi ak ni muy moytoo ay tereem moom it mënees caa soppi dara lii may nit ki itam mu mën a rafetal ay jëfam mën a rafetal ay jikkoom mën a defar xolam loola it jamono du tax ñu ne mënees na ca soppi lenn béréb tam du tax ñu ne mënees na ca soppi lenn kon yooyu ñooy reen yi moom soppi du ca jëm ponk yi itam soppi du ca jëm ponk yi itam ñett lañ ñoom it sëñ bee leen tudd tudd leen tudd leen tudd leen ci béréb yi wuute bañ xam ne yii ñoom ñooy ponki aw yoonam ponk yooyu itam ñooy al ilmu naafi wal amalu saalix wal adabul mardi xam-xam bu am njariñ jëf ju baax ak teggiin yu ñu gërëm mooy teggin yi ñu nangu teggin yi ñu nangu kon lu jëm ci xam-xam bu am njariñ jëf ju baax ak teggiin yi ñu nangu yooye ñooy ponk ñooy ponki yoonu sëñ bi ñooy kenoy yoonu sëñ bi yooyu itam ñoom ci seen jëmm soppi du ca jëm mënuñoo wax fenn ne xam-xam bu am njariñ daal mën naa ñàkk mën naa ñàkk walla jëf ju baax mën naa ñàkk walla ay teggin ak ub yar mën naa ñàkk yooyu ni ko wax bi fu nekk la ko wax fu nekk la boole yett yooyu ba nu xamee ci ne ñooy ponki yoon wi waalam bi ann al ilma wal amala ka adabin tuksibuka al kamala man lam yaxus min haadihi shay'an walam yuhibbaha fa innahu nafsa zalam mi ngi wax loolu ci munawiru sudur di wax ju nax kon fee ma nga naan yatt yow yi muy xam-xam ak jëf yi ak yar ak teggiin ñoo lay may ak mat mu ne yett yooyu ku ci am lum amul te sàkkuwu ko bëggu ko tooñ na boppam mu wax ci nax ju ne waalam bi annama tafaawutul wara bil ilmi wa diini yakunu fasbira wa bihima yafdulu man qad fadula la bintisaabihi liman qad ictala min jihatil ansaabi ummin wa abi fa fihi majtahid ma taaddubi ba tey yett yi la waxaat na nga xam ne nit ñi li ñuy wuute li ñuy wuutee mooy xam-xam ak diine ak ay teggin akub yar ku gën loolu la gëne waaye gëne wut aw askan moo xam ci wàllu baay la moo xam ci wàllu yaay la kon nag na nga farlu ci yooyu dañuy tudd rek ñaari béréb yu mu indee ponk yi waaye fi mu leen indee bari na lool kon ponk yooyu soppi du ca jëm soppi du ca jëm jamono du soppiku bañ mën a wax bañ mën a wax ne xam-xam jaratu ko walla béréb bii moom jarut ñu fi yittewoo xam-xam wala ñu fi sàkku xam-xam jamono jii jarut ñu fi yittewoo jëf ju baax jamono jii wala béréb bii laajut ay teggiin laajut ab yar loolu du am du am mukk wala ku demoon ba def ko it day xam ne kon ci leneen la nekk lu dul wooteb sëñ bi wooteb sëñ bi moom du tàq du tàqalikoo ak yooyu ni mu dul tàqalikoo ak reen yi noonu noonu itam la dul tàqalikoo ak ponk yi bu dee cëslaa yi moom it dañ tudd ñett yett yooyu ñooy ab yar mooy dafa taqoo ak yoonu murit muy yar bokkut ak yar ak teggin waaye ab yar ci boppam di yar di yar nit di yar ki ñuy ki ñuy tàggat dañ koy yar ñaareel bi it mooy li ñuy tuddee xidma xidma xidma mooy di liggéeyal ñeneen ñi di liggéeyal keneen wala liggéeyal ñeneen ngir yàlla ñetteel bi mooy nag di fàggu lu lew fàggu lew moom ki koy def boppam day liggéeyal day liggéeyal ngir am lum mën a suturloo yett yooyu manes na leen jàppee cëslaay ci yoonu murit mooy yooyu taxoo nañ ak yoonu murit yett yooyu itam mënuñ cee deñ buñ ci deñee rek leneen lay doon waaye dëgg-dëgg du doon nag yoonu murit yi nga xam ne moom la sëñ bi andi muy di yar di yar nit ñi ak di liggéeyal ñeneen ñi di liggéeyal keneen di liggéeyal ñeneen ak nag di fàggulu lew mooy di liggéey ci anam guy maye lu lew mooy fàggu lu lew yett yooyu ñoom itam e, duñu tàggoo ak yoonu murit kon yetti wàll yooyu muy reen yi ak ponk yi ak cëslaay yi yetti wàll yooyu amu ci lenn lu soppi wara dugg soppi waru caa dugg nit ñi mën na ko soppil boppam waaye bu ko soppee leneen lay nekk te leneen lay nekk waaye wooteb sëñ bi moom yoonu sëñ bi moom yooyu dara lu ca génn lu ca génn rek du doonati yoonu sëñ bi li soppi mën a dugg nag mooy soppi man caa am la mën a am mooy yii nu waxoon am na ci yu bari yooyu jëmm ja lañ mënta soppi xam-xam bu am njariñ mënuñoo dem ba ne jaratu ko waaye nag jamono sàngam luñ jàppe xam-xam bu am njariñ loolu moom mën naa soppiku jamono sàngam ñu jàppe nangam xam-xam bu am njariñ wala xam bu amul njariñ jeneen jamono ñu jàppe ko xam-xam bu am njariñ wala béréb sàngam ñu jàppe fi nangam xam-xam bu amul njariñ beneen béréb ñu sañ koo jàppe bu am njariñ loolu mën naa nekk waaw lu mën di xew jëmmi xam-xam bu am njariñ moom duñ wax ne mën naa ñàkk waaye nag anam ya anam yi moom soppiku mën na caa am kon buñ naan soppiku ci ay jumtukaay lay jëm jumtukaay yi ñuy jaar ba sottal ba sottal yi ñu bëgg a sottal jumtukaay yi jumtukaay yi ak anam yi defiin yi defiin yi moom mën naa soppiku jumtukaay yi mën naa soppiku ba ci yii nu waxoon sax ndax ci lañuy delluwaat bu ci nekk ñu nu xool ndax am na ca luñ mën a soppi ci ay jumtukaayam ak i defiinam bu nu xoolee reen yi mi fondement yi moom dafa mel ne moom soppi mënu caa jëm ci lenn soppi mënu caa jëm ci lenn ngëm ak jëf jëfe ndigal yi bàyyi tere yi ak rafetal loola moom foogu ma ne am na genn genn anam gu ca soppi mën a jëme waaye bu ñëwee ci ponk yi ponk yi muy xam-xam bu am njariñ euh, jëf ju baax ak yar ak teggiin loola moom soppi mën naa am ci jumtukaay ya soppi mën naa am ca defiin ya te du tax mu yàq dara du tey ba léegi mu doon murit gi nga xam ne moom la fi sëñ bi andi mu doon yoon wi nga xam ne moom la fi sëñ bi andi buñ xoolee ci ponk yi lu mel ne xam-xam boo am njariñ wax na ne moom du soppiku jëmm ji ci boppam moom amul jenn jamono jun naan mën naa ñàkk waaye nag yoon yaa ak jumtukaay yaag def yi ne moom soppi mën na caa am mel ni misaal rek lañ laal ci bëgg a joxe mooy liñ daan wax njàngum tubaab njàngum tubaab njàngum tubaab murit gi dañ ko yàgga moytu dañ ko yàgg moytu dañu yàgg moytu njàngum tubaab te jar na ko it nag jar na ko jaroon na ko rawatina ca ginnaaw ba léegi sax jar na ko waaye nag gënoon na koo jar moom ca ginnaaw ndax yam daan àndal lam daan mën a jur ba nage ni sax ba tey am na lu mën a jur am na lu mën a àndal waaye bu njëkk la la ëppoon xëy na loolu mënees na cee xool ndax ak coppiku mën na cee am wala déet mooy taxawaay bi bi ci murit gi amoon ndax mën na koo dugal ci xam-xam bu am njariñ wala déet ay jamono xëy na dañ ko ci dugalutoon ba tax ñu doon ko moytu la teewoon ñu dugal ko ci dañ caa gisutoon njariñ ndax xam-xam am njariñ mooy dañ caa gis njariñ dañ ko caa gisutoon dugaluñ ko ci woon waaye buñ xamee ne gis nga bi ñuy wax léegi xam-xam bu am njariñ la sëñ bi wax moom lay wax fu mu al ilmu lay wax waaye du wax rek xam-xam rek yam ci du wax xam-xamu diine itam yam ci daan xam-xam bu am njariñ bu ne xam-xam bu am njariñ nag kon bépp xam-xam bu am njariñ rek da cay dugg du tey nag am lu ñu war a jiital la ñu war a jiital nag mooy xam-xamu diine xam-xamu diine mooy liy xamal nit ki li yàlla bëgg ci moom ak nim ko bëggee ci moom loolaa war a jiitu ndax yitteem ci àddina si moom nit ki mooy mu jaamu yàlla kon nag la war a njëkk xam mooy yàlla moom mu war a jaamu nan la bëgge nan la bëgge nu jaamoo ko ko te loolu mooy xam-xamu diine kon moo war a jiitu waaye nag bu jiitoo it beneen xam-xam bu am njariñ bu ne sëñ bi moom boole na ko ci gis nañ ci na Munawwirus Sudur day wax ne xam-xam bi gën mooy xam-xam buy jegeel nit ki yàlla daal di tudd ñett yi ñu waxoon ci ci ci reen yi muy pas-pas ak muy tawxid ci tawxid rek ak fiq ak tasawuf ñett yooyu neen yooyu ñoo gën ci xam-xam yi ndax ñooy ñooy jigeel nit ki yàlla ndax moo ñoo koy may mu mën a jaamu yàlla te jaamu yàlla moo ko fi indi waaye mu teg ci nag bépp xam-xam bu am njariñ hada wa xayrul ilmi ya ilmun muqarribun liman minhu nuqul kal aqdi kal aqdi kal aqdi wal fiqhi wa kat tasawufi wa kullu ilmin bi manafia ya fii kon gis nga jiital na xam diine waaye nag taj na ci bépp xam-xam bu am njariñ kon sëñ bi ubbi na buntu xam-xam mu yaatu lool la ca génn rek mooy lu amul njariñ njariñ nag sëñ bi fu mu koy waxe moom mooy fi ko lislaam di waxe it mooy njariñul àddina ak njariñul alaaxira luy joxe njariñul àddina baax na luy joxe njariñul alaaxira moo gën waaye lu amul njariñ ci lenn ci yooyu nag loolu moo moo amul solo kon bu njëkk bu xamee ne kon xam-xam bu am njariñ bu sëñ bi moom boole na ko ci ab wooteem bu nag xam-xamu diine waaye beneen bu am njariñ bu nekk itam boole na ko ci nu xamit ne moytu gi ñu doon moytu li ñuy tuddee njàngum tubaab amoon na lu ko waral lu ko war a waral itam mooy lu ko mat ba na ngeen sax na des na ba tey lu war a tax nu moytu waaye nan xam na it sëñ bi ca 1912 boobu ak léegi téeméer at ak nangam nangu woon na ñu ubbi école bu ñuy tuddee école tubaab fii fi Mbàkke njaboot gi yóbbu fa seeni njaboot ñu fay jàng 1912 téeméer ak nangam kon mooy ne buñ koy moytu daa am lu luñ cay moytu loolu nag ñoom ba mu koy nangu dañ koo nangoo ci anam goo xam ne lañ ca doon moytu mën na caa bañ a am ndax li liñ doon bañ rek mooy nit ki tubaab bi def ci moom li mu bëgg lépp. tubaab bi def ci moom li mu bëgg lépp def ci ay ngëm-ngëmam def ci gisiine àddinaam bu ci defee xam-xam itam waaye boole na ca yee loola lañ la ñuy moytu ndax sëñ bi li ko tax a jóg daa safaanoo ak li taxoon a jóg tubaab bi tubaab bi daa bëggoon a jël xel yi nit ñi ak seeni xol ginnaaw bi mu jëlee seen suuf ba noppi sëñ bi ci jamono jooju rek moom itam mu ñëw ngir aar xeli nit ñi aar seeni xol ba tubaab bi du ko jël ci aar googu nag yan woon na maanaa ñu moytu seenub école ndax man caa aarale xel xel mi ak xol bi du yomb moo tax dañ dañoo wax ne bis bi tubaab bi bëggee école boobu dafa yónnee ci sëñ bi wax ko ko ne ko daa bëggoon daal ne ko xam nañ ne noo ngi fi waaye nag xam na ne duñ fi dëkk xam na ne duñ fi dëkk lu yàgg-yàgg dañuy ñibbi dana bëggoon nag bu ñuy ñibbi itam réew mi ñu teg ko ci loxol waa réew mi nu bëgg a waajal ñoo xam ne bu ñuy dem man koo teg seen loxo wax nañu wax joo xam ne wax ju rafet la ci kaw gi nii sëñ bi wax mag ñi ñu waxtaan ci mu diisoo sax dafa laaj dafa laaj di leen laaj luñ ci luñ ci luñ ci luñ ci luñ ci gis lu ci seen xalaat sëñ bu Buso lañ ne moo ne ko li dul am solo daal mooy nu dox leen suñuy doom ñu yóbbu leen ci dëkk ya nga xam ne ñoom ñoo ko yilif ñoo fa ñoo fa nekk dëgg-dëgg daal ay Ndar ak ay Ndakaar ay Gore yooyu waaye nag buñ buñ mënee def jàngu bi fi fi noonu fi sunu biir nga xam ne bu xale jàngee foofa it xëy na daañ fa jële xam-xam waaye buñ delsee ci suñuy kër nu mën leen a yar yar bi ñu bëgg loola mën naa bañ a wàññi dara sëñ bi ànd ca lool ko sëñ Mbàkke bu soo wax ba nangu ñu ubbi école bi fii ci Mbàkke am ci ñuñ fa yebal ñoo xam ne am na ñun ci xam ñu fay jàng ci jamono sëñ kon du ne rek mooy kon moytu ko doon nañ ko def waaye itam lañ ca doon moytu buñ ko mënee buñ mënee fexe ba du amit duñ ko bañ suñu loolu defoon boole téeméeri at la. bu dee léegi nag day mel na yëf yi daal taxawaay bi dafa leere wut nam leere woon ci jamonoy sëñ nam leere woon moom mooy liñ ci ragal xam nañ ko buñ ko mënee moytu rek duñ ko ragalat ndax danañ fa jëlee njariñ te du ñu yàqal njariñ dana ci jóge te du ñu yàqal léegi nag daa mel ne taxawaay bi dafa leere wut noonu daa mel dañuy dañuy mel ne rek ku ko bañ rek ku ko bañ rek ci wax te ci jëf nag ñu koy wut ndax ju bari dañuy wax ci wax day mel dañ koy bañ njàngum tubaab te seeni doom ñu leen di jàngaloo tubaab seeni taalibe yu jàng tubaab ñu leen di fonk bu dee ñu ami taalibe lañ am na yitte yoo xam ne bu ko amee ku jàng tubaab lañ koy def loo kon mbir day mel ne da nga nanguwut ci kaw gi ba noppi te nangu ko ci biir loolu ñàkk leer la li gën nag nga am taxawaay bu leer boo dañ koo nanguwut ñoo xam dañ koo nanguwut sëñ bi nag moom waxul dañ koo nanguwut mu jeex waaye nangoo wuñ ko nii waaye nag mën nañ koo nangoo nii foog naa loolu moo gën a moo gën a moo gën a moo gën yenu maanaa te ñàkk gi it day jur ay lor ñàkk gi mooy taxawaay bii ñàkk mel ne ku ko nanguwut ba noppi bàyyi sag njaboot ñu di ko wuti feneen feneen loolu day jur ay lor te ko nit ci dëkk bi dina gis mi ngi gis lor yooyu mooy biir dëkk bi école yooyu amee amu fi daanaka am gu gu tax ñuy wax amu fi waaye gone dëkk bi ñu ngi génn di ko feneen ñu leen di seetaan ñuy génn di ko wuti feneen dem nag wuti ji feneen ay lor da ciy juddoo yoo xam ne ginnaaw jàpp nga ne sañ nañ koo wuti mooy dëgg-dëgg bañoo ko ginnaaw bàyyi nga sag njaboot ñu di ko wuti feneen mooy dëgg-dëgg bañoo ko boo ko bañul nag dangay wax ne bañoo ko rek bu ko defee jàppandalal leen ñoom fi ñu dëkk ñu ko fi amee bu ñu koy amee fi ñu dëkk danga leen mën a contrôler ba anam ga nga bëgg ñu ko ñu ko ñu ko koy amee ci anam googa lañ koy amee boo bàyyee ñu koy wuti ca bitti nag man nañ faa jële leneen te te dañ fay jële leneen sax ndax foofu yow maîtriser woo ko contrôler woo ko foo ko la fay dox tëraloo ko sa biir nag yow tëral la fay dox boo leen fi wutalee lañ la ñuy wuti feneen nga wutaleen ci seen biir danañ ko fa mën a amee ca na nga ko bëggee yow mooy li sëñ bi waxoon rek sëñ Mbàkke Buso bu ñu leen bàyyi ñu leen di yóbbu ci dëkk ya nga xam ne ñoom ñoo ñoo ko yilif waaye nañ doon ci suñu biir bu ñuy def xam-xam ci ñoom noonu ñuy def yar bi nu bëgg ci ñoom lor yi nag war war naa tax ñu xalaataat ci lu mel noonu lor yi coono yi nga xam ne xale yaa ngi koy daj ngir di wuti loolu feneen di ko wute ji Mbàkke di ko wute ji Kéré foog na ñaari kere yëpp di ko wute ji Mesere di ko wute ji Touba Belel sax foog foog na coono yi ñu ciy daj wax dëgg yàlla bu leer dama naan wax ndax njàngum tubaab jar na lii loo xam ne ci daanaka coono yi ñu daan daj ci daara moom lañ cee daj daanaka kon kon loolu lor la joo xam ne ñu ngi juddoo ci taxawaay bu ñàkk leer bii ndax buñ ne woon nangu nañ ko def ko ci suñu biir coono boobu dana teggi buñ ne woon nanguwuñ ko itam suñ njaboot duñ leen bàyyi ñu koy wute ci feneen loolu lor la jeneen lor ji nag moo yées te mooy dañ fay jële leneen xale dana nekk sunu biir waaye dëgg-dëgg day mel ni bokkuñu bokkuñ ci nun bokkuñ ci nun ndax leneen la ñuy dund ndax fa ñuy génn di fa wuti ji njàng moomu ñuy wuti dañ fay jële waale yeneen dañ fay jële ay xalaat dañ fay jële ay aada dañ fay jële ay jikko bu ñëwee suñ biir ñu ngi suñ biir waaye day mel ni bokkuñu ci nun te loolu nag lu doy waar la lu doy waar mën nañoo dem ba jëmmi jamono rek te lu jërul waaye fal de man dem ba jëmmi jamono loolu ñu doon nëbb ndax dañ koy nëbb ñu fesal ko te kenn du leen mënal dara boobaa ndax ñoo fi ëpp ñoo fi ëpp am mbooloo mu dul jeex la ñuy doon xëy xëy rek e, doxe doxe noo xam day wuuteeg win bëgg nun ak win xam te la ko waral rek mooy li ñu leen bàyyi woon ñuy génn di wuti di fa jëlaale leneen luñ bëggut nun xëy na loolaa waroon tax ñuy bañ njàngum tubaab waaye bi ñu leen bàyyee ñu dem nag indi nañ ko indi nañ ko ci suñ biir di ko nëbbu waaye mën nañoo dem ba jëmmi jamono ñu fësal ko te kenn leen man dara ndax lim ba ñuy lim ba ñuy toll mooy tax bu amoon sunu biir kër sa biir kër la sa njaboot di soxla te nga jàpp ne amal na leen njariñ danga leen koy wutal ci sa biir kër man leen a nosal nañ koy wute man leen a nosal anam yañ koy wute yañ yañ koy jëfandikoo boo leen bàyyi ñu wuti ji ko feneen nag mën nañ faa jëliwaale leneen mën nañ faa jëliwaale leneen xale yii di jàngi am na ñoo xam ne bu ñu jógee seeni kër danañ jiital col goo xam ne ñemewuñ koo sol seen biir kër ñemewuñ koo sol ci dëkk bi waaye daañ jiital col googa teg ci kaw wodd duñ dem ba àgg de ci biir oto bi lañuy ñuy buñ demee ba romb mm, wisit bi xaw <laughs> buñ rombee buñ ko rombee rond point buñ koy romb ci biir oto bi la ñuy summee nga xam ne ñoom gëm nañ ne fee moom ku fa nekk nii nga war a mel njàngum tubaab ku koy def nii nga war a mel fii nga nekk nag ñoom xamuñ lu xew léegi da leen di da leen di nax rek dangay ngay teg ci sa kaw dara booy bala ngaa àgg fa nga jëm sax nga dindi ko booy ñëwaat itam ba jub ba bi nga laxasawaat la nga laxasoo woon baag si ci sa kër bu doon ci suñ biir kër la ci biir kër gi lañ leen defale liñ li ñuy li ñuy sàkku ji feneen loolu du ca am loolu du ca am bu ecole bi nekkee biir Touba <laughs> loolu amu ca amut looy sol fii boo demee sol lee ndax benn dëkk bi nga nekk te benn dëkk bi moo am benn atte loolu foog naa ne lu jara jara bàyyi xel la kon foofu foog naa ne soppi mën na faa am nag soppi mën na fa am soppi war na faa am sax laay wax war na fa am benn nu ne danoo bëggul njàngum tubaab mu leer nàññ kon duñ bàyyi suñu njaboot ñu koy jàng walla nu ne bañu dara am na njariñ ñu andil ko suñu njaboot ci kër gi mën na leen taxawu bañ koy wutee ci anam goo xam ne da leen di jariñ te du leen lor waaye mel nekku ne baaxut waaye bàyyi sa njaboot ñu di ko wuti feneen di fa jëlee leneen di ci toggoo ab coono ak fitna joo xam ne kenn xamul nu mu toll xam naa ni ñu bari mënuñoo xam dëgg dëgg fitna ji ci xale yi di daj ci jàngi mbàkke gi rek sàkkantuwaa nag fu gën a sori mbàkke waxtu wu ñu war a xëy ak waxtu wu ñuy wàcc fitna ju ne la ñuy daj léegi nag benn dañ naan loola baaxut ñu téye leen ñu bañ ko sàkku ji feneen wala ñu ne baax na ñu wutal leen ko fi ñu dëkk ñu bañ cee tegoo coono yu mel noonu taxawaay bu leer boobu foog na jaadu na jaadu na mu am loolu kon moo aju ci wàllu xam bu am njariñ jëmmi xam-xam bu am njariñ moom di wax ne mën nañ ko cee mën na cee bañ a bokk wala yu mel noonu loolu kenn du ko xalaat waaye nag lu ñuy jàppe xam-xam bu am njariñ ak lu ñu ko dul jàppe loolu moom soppi mën na cee am jamono sàngam mën nañoo jàppe nangam xam-xam bu amul njariñ jamono sàngam ñëwaat ñu jàppe ko xam-xam bu am njariñ wala béréb sàngam ñu bañ ñu jàppe ko xam bu am njariñ beneen béréb ñu jàppe ko fa xam-xam bu amul njariñ wala safaan kon loolu lu mën a nekk la te ci ponk yi la aju ci ponk yi ba tey li ñuy tuddee al adabul mardi bi sëñ bii wax muy teggiin waaye sëñ bi it euh, dafa yéeme daal li tax baat yi du yem ci baat bi rek du wax rek xam-xam rek yem ci wala mu ne teggin rek waaye da da koy melal ndax melal melal gi mooy tax ba du càggane loo tuddee teggin rek mu bokk ci du càggane loo tuddee xam rek mu bokk ci waaye day mel nangam door caa bokk moo tax teggin yi itam dajaa teg teggin yu ñu nangu ndax nit mën naa jàppal boppam lu mu jàppee ay teggin te dëgg-dëgg bu ko toppee doon lu ñu nangu ci biir teggin yi itam ni ñu ko waxee jëmmi teggin ci boppam moom munta doon lu ñuy soppi ne jëru ko walla matu ko walla <clears throat> waaye nag anam yi anam yiñ koy feeñale yooyu moom soppi mën na ca am anam yi ñuy feeñale ay teggiin ak ma rawat na ma sax laa jubloo fi mu ne nii tax ci biir teggin la dugg anam yi ñuy feeñale ma loolu moom soppi mën na caa am te léeg-léeg mu war caa am anam yi ñuy feeñale worma li ñuy njëkk seetlu rek mooy lu ci baree bari murid yi murid yi ñoo ko indil seen bopp ñoo ko andil seen bopp lu sëñ bee ko andi ne day leen def lii waaye ñoom ñoo ko defal seen bopp jàpp ne anam la guñ mën a wone war ma lu ci bari loolu rek njëkk koo xamee noonu daa tax ñu xam ne kon lu soppi mën a am la ginnaaw noo ko fi andi kay kon sañ lañ ko soppi tam bu fekkee laaj na ko bu doon lu sëñ bi andil boppam la moom loolu lañ naan ndax moom laaj na mënees na cee soppi wala déet waaye li ëpp ci anam yi ñuy wonee war ma moom nun noo ko fi indi suñu bopp bu ma nee nun nag mooy la tàmbalee ca njëlbeen ga ba nëgëni ci maas yëpp maas bu am na yu ñu indi wala am na ci maas yooyu daal am na yu ñu indi ñoom yoo xam ne dañ koo boole ci yi ñuy wone war ma danaa ci tudd yenn rek li ñuy tudd sujjóot sujjóot sujjóot lu ñuy wone war ma loo xam ne murit yee ko indi sëñ bi digal digalu leen ko newleen leen leen ko def waaye murid ya dem ba jàpp ne lii anam guñ mën a feeñale warmaal ñu di ko def summi mbaxana ngir warmaal kenn summi ay dàll toog ci suuf yooyu yépp anam yi feeñal warma la ñoo xam ne murid yee ko andil seen bopp bu buñ nee ñoo ko di seen bopp rek daañ ci dégg ne kon bu leen neexoon tam ñu am luñ ci sotti bu ko laajee bu ko laajee loolu kon lu ñuy njëkk a seetlu rek mooy li ci ëpp noo ko indil suñu bopp leneen liñ ci seetluwaat mooy ñu bari ci nit ñi niñ déggee yooyu des na des na niñ ko déggee des na mooy yemale ko rek jàppe ko anam gu ñuy feeñale war ma waaye dañoo àgg ci jàppe ko ne mooy war ma mooy war mooy war ma nag bokkut ak anam gu ñuy feeñale war ma la bokkuñ kon loo ñàkk a dégg ñu bari ci nit ñàkk nañ ko dégg yooyu la yemuñ ci xam ne anam la yu ñuy feeñale war ma waaye dañoo jàpp ne mooy war bu ñu ne mooy war ma mooy ku am lum ci deful rek dañ naan amul war ma ku am lu ci deful rek dañ naan amul war waaye duñ wax ne moom kat anam gi boolewu ko ci anam yi muy feeñale war ma waaye dañ naan rek amul war ma ndax dañoo jàpp ne yooyu ñooy war ma loolu déggin woo xam ne wu des la eh, da cee am loolu muy ñaareelu seetlu ñetteelu seetlu mooy taral ci yooyu taral ci taral ci dana dem ba indi lor taral ci dana dem ba indi lor ñun waxoon ne taxawaay bii nu am ci njàngum tubaab dana dana dem ba indi lor mi ngi koy indi moom mi ngi indi lor taral ci anam yi ñuy feeñal war ma itam mën naa dem ba indi lor te danay indi lor ci misaal moo xam nit ki mooy lor boppam wala muy lor keneen sumi e dàll ci misaal anam la ku ñuy feeñale war ma waaye nag léeg-léeg nit ki def ko ba loru ci ba loru ci dégg naa ñu ne sëñ Abdul Xaadir mas naa gis ci ci jotaayam moom am nit ku ñëw solul ay dàll tam tàngul lool muy wadd wadd mu ne solal dàll fekk fekk lor moo tax ñu def ko gis nga ndax jàpp nga ne mun rek jàppatoo ne anam gu ñuy feeñal war ma la da nga jàpp ne mooy war ma boo solee daal rek warmaaloo ki nga nekkal te anam na gu ñuy feeñal war rek bu ci lor nare ju doon nag du ko jarat du ko jarat dana ko solal dàll yi fekk lor moo tax ñu def ko loolu misaal la rek ci ne euh, taral ci mën naa yóbbe nit sax mu lor boppam wala mu lor keneen ba tey ci suñu dàll yi kii kii boppam la lor ci suñu dàllam dox ci naaj wu tàng lool muy màgg ci di wat te doon te doon magum jëmm kooku mu ngi lor boppam waaye am na ñooñ dañuy lor jàmbur yi ci seen ñàkk sol dal ndax dàll dëgg-dëgg mooy lan xam nit léeg-léeg day day summi ay dàllam man solut ay dàllam li ñu tuddee dàll solu ko waaye li war a taq ci dàll lépp mi ngi koy dugal ci jàkka yi mi ngi koy dugal ci saali jàmbur yi li war a taq ci dàll ba tax ku sol dàll ba àgg ci buntu summi ko moom neen daa solu dàllam far waaye nag la nga xam ne ña sol seen dàll ñoom duñ ko dugal ci ca ca béréb yi moom moo ngi ko fay dugal ndax solu dàll te mi ngi jaar fi ñu sol dàll di jaar lay takk ci seeni daal di ko takk moom ci ay kawasam wala lam sol moo xam wala solu dara ma ngi koy takk muy dugg ci néegi jàmbur yi di dugg ci jàkka yi di dugg ci foo xam ne nit ñi dañ faa dajaloon loolu lor nit ñi la ndax dàll buñ koy sumi ngir bañ a takkal fa ñuy dugg la waaye kii nga xam ne moom daa solu daal kon moom mooy daal di boppam ci misaal bu fekkee solu dara dara ay tànkam mooy dàllam tànkam yooyu mu dugal ci saal bi kon dugal na fay bu dee ay kawas la sol di ko di ko doxee fépp fépp fépp fépp dugg ci jàkka ji kon dugal na ci jàkka ji ay dàllam ndax kawas yi mooy ay dàllam ndax dàll mooy loolu rek mooy li nga xam ne moom ngay teg fi ngay jaar ngir la cee taq booy dugg foo bañ mu taq fa nga summi ko bañ koo duggaale bu dee nag yow fi ngay jaar la la fee booy dugg fa ngay dugg doo tàggook moom kon yow safaan bi nga def safaan bi nga def mooy feeñal war ma lañ ci jublu waaye yow ki nga ne dangay dangay feeñal war ma joo koy warmal yaa ngi koy lor ndax yaa ngi koy takkalal ab ab néegab wala ab saalam wala jàkkaam wala jumaam loolu tam kon foog naa ne lu lu jara lu jara xoolaat la lu jar a xoolaat jàpp naa ne ki nga xam ne dafa sol ay dàll léeg-léeg mu mu tooy bàq ab baq ab baq ki nga xam ne dafa sol ay dàllam ci bàq bi ba sës fa mu bëggut a dugal ay dàllam mu summi dàllam foofa bu duggee ca biir amut lenn lu fi àndaale ci luy taqal foofa ki ne moom du sol ay dàll di dox ci bàq bi ba agsi moom dugg ak ay tànkam kooku day taxal foofu kan moo ci dëgg-dëgg kan moo ci ku ëpp war ma dëgg-dëgg dëgg-dëgg kan moo ci ëpp war ma ci am war ma ba sa béréb ak ki nga xam ne moom daane war maam mooy muy dox ci bàq bi moom ñëw taxal ko sa béréb bi loolu jar na xalaat jar na xalaat kon yooyu foog naa ne euh, soppi war na cee war na cee mën a am mooy bu fekkee nar naa jur yooyu bu fekkee nar naa jur yooyu nag ñu jàpp ne war na koo mën a bañ a jar léeg-léeg mën naa yóbbu nit ki sax ci ak ak ak ak jaaxle moom moom ci boppam taral ci yenn yi mën naa yóbbu nit ki ak jaaxle ba tey li ñu doon wax rek ci summi mbaxana xam nga li nu xam mooy dañoo taamu ci kuy julli bu ko mënee mu sol mbaxana moom mu teg mu teg dara daal ci ci ci boppam loolu noonu xam nañ ko fii ne taamu nañ ko sëñ Abdou Khadir mii nga xam dafa fonkoon na lool da fonkoon nee nañ bu ma saan di julli daan digal nit ñi sol seeni mbaxana ñu lànk ñu lànk léegi loolu mooy lan yow kii nga ne mooy sab sëriñ moom ngay warmaal mu digal la nga lànk nga ne da lànk ndax da nga koo warmaal loolu mooy lan aada ji aada jiñ aada ñu bëgg tënku rek jàpp ne mënut a ñàkk mooy baña sol mbaxana ci sa kanam kilifa aada jooju lañ bëgg a tënku ba tax kilifa gi ci bopp ne la solo sa nga lànk ndax kilifa gi moom mi ngi xool wàlluk sunna wàlluk sunna li gën a kii mooy fi mu la ko digale te fekk sunna digal la ko fa nga def ko foofa boo génnee nag ci sa yittey bopp wala ne xam sol sa mbaxana waaye moom ci bopp mu digal la ko nga lànk ngir ne da nga koo lool loolu neexuta neexuta neexuta firi neexuta firi kon euh, loolu itam jar na jar na bàyyi xel muy kon taral loolu taral la taral ci anam yi nga xam dañ ci dañ ci feeñale war ma taral ci mën naa yóbbi nit loolu kon nit mën naa jaaxle bu ko taralee ba jàpp munta ñàkk ba noppi àgg béréb boo xam ne moom lañ fa taamu mooy sol fa mbaxana mën naa jaaxle bu jàppee ne munta ñàkk te dégg ne sëñ Tuubaa daana ko tere dana jaaxle bu déggee ne sëñ Tuubaa daana tere nit ku sol mbaxanaam ba si kilifa summi ko ngir nuyu ko daana tere ba noppi nag léegi ñu dem ba jàpp ne loolu moom munta ñàkk dana jaaxle dana jaaxle te loolu tak taral gi rek moo ko waral taral gi rek moo ko waral ba jàppe ko lu munta ñàkk kon anam yi ñuy feeñale war ma du loolu dañ naan rek ñii rek la war a demee ci béréb yépp ci jamono yépp ci misaal murit gi waxoon nañ ne béréb tënku ko jamono tënku ko mooy kon fu ne la war a dem ba fawu itam dafay war a nekk fu ne la war a dem bu waree dem fu ne nag am na ñoo xam ne nag am na yooyu duñ ko man am na yooyu duñ ko man am na ñoo xam ne am na yooyu duñ ko man te boo ko lëkkalee ak murit gi nag ba mel ne da caa bokk day gàllankoor ñu mën koo nangu ñoom day gàllankoor ñu mën koo nangu ñoom ñeneen ñu bokkut ak nun ñii nga xam ne ñun xam nañ yi miin nañ ko xam nañ ndax ci sunuy aada jóge ñu fekk ñeneen ñoo xam ne ñoom ña nga ci yeneen béréb am seen aaday bopp ñoom ñu yót leen li nga xam ne ci sunuy aada jóge won na leen ci yoon wi la bokk ba daanaka buñ ko mënul rek seenu bokk ci yoon wi day des am na ñoo xam ne du duñ ko man duñ ko man te boobu day doon gàllankoor goo xam ne day dox seen diggante ak ñu bokk ci yoon wi ci misaal euh, ñi nga euh, fu mel ne Italie walla réewi tubaab yi daal am na ñoo xam ne danañ fexe ba dugal ba am ñu ci dugal ci lislaam dugal leen ci yoonu morit waaye nag nañ leen di wone yoonu morit lañ leen di won ne daanaka dëgg-dëgg ñoom moo leen ci gën a ñor loolu lépp bokku ci man mas na maa gis sëñ Murtala dem Italie ñu koy présenté ki ñuy wax Abdou Sale euh, Sale Saliou nga xam ne daanaka ñoom bu ñu koy won ne daal ak moritam mat na mooy dégg na wolof sax dégg wolof mooy lan <laughs> dégg na wolof sax bu fekkee dégg nga wolof di sol li ñuy sol noonu di nangam nangam ñu jàpp ne sax murit mat na loolu bokkut ci murit sëñ bi bokkut ci murit gi am na ñoo xam ne mënuñ ko am na ñoo xam ne mënuñ mënuñoo sol suñu yére yi mënuñ ko bu fekkee nag buñ ko munta sol duñ bokk ci murit gi ñoo xam ne mënuñ yi yi ñuy feeñale war ma def tànku neen mënuñ ko dañ ko mënut xamuñ ko yarwuñ ci léegi boo ko wanee nag loolu mënu cee ñàkk man nga ko gàllankoor te mën na cee ñàkk nag bokku ci bokku ci kon yooyu buñ bëggee yoon wi fi sëñ bi bëgg mu àgg fa àgg fa li nga xam ne doonut lu ci munta ñàkk buñ ko yóbbaale buñ ko yóbbaale Cheikh Abdoulaye Dieye yàlla dimbaliwoon na ko ci loolu yal ko yàlla yërëm yàlla dimbaliwoon na ko ci loolu mu seetlu loolu doon ko moytu itam yàlla may ko ci ndam itam dugal loo na ñu baree bari ci lislaam ñoo xam ne dugal leen ci yoonu murit te aada yi nga xam ne suñu aaday bopp la kiiwu leen ko gaw gawu leen ca ñu doon lañ doon te dooni murit te loola mooy gën mooy gën a sax koo xam ne danga caa boole yu diis yu bari yoo xam ne bokku ci bu diisee rek mën naa baay mën naa bàyyi te dëgg-dëgg bu xoolee day gis ne yooyu dëgg-dëgg taxul mu am solo lool sol mbubu sàngam def tànku neen di naan kafe ak yooyu yëpp <laughs> naan kafe kay yëpp li ci bëgg a boole mel na da cay bokk kon anamuk feeñal war ma eh, day tënku ci bërëb di tënku ci jamono waa béréb bii ñoom mën nañuy feeñale nii seen war ma béréb boobu sax mën nañ dem ba jamono ñëw béréb boobu ci boppam ñuy feeñalee neneen seen war ma sàkkantuma nag bu dee beneen béréb lañ dem kon anam yooyu euh, moom soppi war na caa mën a am soppi war na caa am sax léeg-léeg loolu moo aju woon kon ci ci keno bu dee ci ponk yi wàllu yar yar yar nit ki taalibe bi yar ko daa bokk ci ponk yoonu murit mooy di yar nit ñi yarit xam nañ niñ koy defee waaye yar leen ci liggéey da cee bokk yar leen ci liggéey da cee bokk yar leen ci liggéey nag ca njëlbeen ga ci liggéeyu liggéeyu kaw lañ ko daan defee ndax ci kaw gi lañ nekkoon liggéeyu kaw mooy mbay mbay kon daanaka bu ñu waxee liggéey rek mooy mbay bu ñu waxee liggéey rek mooy mbay kon loola moom daan moom lañ daan liggéeyee loolu nag waruñ caa déggee ne kon di bay moo bokk ci ni ñu war a yare ab murit waaye di liggéey moo ci bokk koo xam ne nag bay moo war a doon liggéeyam kon dañ koy bayloo waaye koo xam ne beneen liggéey la war la war a man wala la aajowoo moom it te booba lañ ko war a tàggat te booba lañ ko war a tàggat loolu moo tax ba sëñ bi bi ñëwee njaareem joxe na ci ay junj joxe na ci ay junj mooy biir kër ga defoon na fa lu ñu mën a tudde léegi ay atelier ay atelier mooy xeeti métier yu wuute yoo xam ne ca biir kër ga daanañ ko fa jàng daan ko fa def ñoo xam ne doon seen cosaan daawuñ def yu mel noonu ñu doon ay doomi soxna nga xam ne jàng ak bind lañ lañ lañ baaxoo woon mu leen di awloo walla di leen liggéeyloo ci weñ wala di leen liggéeyloo ci dénk ñu baaxoo woon def loola am ci ñu muy binduloo ak di leen jàngloo loola mi ngi doon mi ngi doon junj mu ngi doon junj mën nañ cee dégg ne yar mooy tàggat nit ki ci liggéey ci liggéey waaye liggéey ba nag ma nga aju ci jamono ja ak béréb ba ban liggéey lay doon loola moom mën naa soppi waaye nag tàggat ko ci liggéey moom du soppiku duñu wax mukk ne tàggat ci liggéey jaru ko jamono ji daal laajatul ñu tàggal nit ñi ci liggéey walla nun béréb yi ñu nekk moom laajul ñu tàggal nit ñi ci liggéey béréb yëpp a ko laaj jamono yëpp ko laaj waaye nag ban liggéey lañ leen di tàggat nag loolu moom béréb bee koy wone ak jamono ci te sëñ bi joxe na ci ay junju bi bi mu nekkee njaareem moo tax ba kon jamono ji nu toll daaree tarbiya yi baaxoon na ñu fay dugal li ñuy tuddee formation professionnelle mooy métier yii am métier yii am nii ñu koy dugal ci daaree tarbiya yi di ci tàggat di ci tàggat ñu dafay tarbiya ndax ñu ci bari mën naa am buñ noppee duñu dellu ca kaw ga bay bay ñu ci war ma naam ci taax yi la dellu taax yi nag liggéey yooyu moo fa am kuñ bëgg a waajal ci liggéey ndax waajal ci liggéey daa bokk ci yoonu murit ndax sëñ bi dafa bëgg murit bi mënal boppam ngir moom boppam ngir mën a moom boppam mënal boppam mooy day am liggéey bu man boo xam dana ko mën a liggéey am lu cay jóge lu muy mën a suturloo moom di ci taxawu ak njabootam itam bu ko defee mën a moom boppam nag ba kenn du ko dugal ci lum xamut kenn du koy dugal ci lum bëggut dugg loolu daa bokk ci jubluy sëñ bi te tàggat nit ki ci liggéey moo ko koy may moo tax loolu mënut a ñàkk kon nag li liñ koy tàggat mooy loo xam ne dana ko amal njariñ waaye du duñ ne rek bu njëkk mbay lañ daan def kon bay rek lay doon ndax ki nga tàggat ci mbay te bu fi jógee du bay du ko amal njariñ loolu lool waaye li mën a def bu fi jógee ci nga koy tàggat bu fi jógee man def liggéey boobee man cay man cee jëli dara loolu mooy wàllu yar wàllu xidma mooy liggéeyal ñeneen buñ ne ci murit gi nag liggéeyal ñeneen liggéeyal sëñ bi lañuy wax ndax lépp ci biir liggéeyal sëñ bi lay dugg lépp ci biir liggéeyal sëñ bi lay liggéey bi it ni ñu ko waxe woon jëmmi liggéey it ndax liggéey mooy lan mooy di defal keneen ngir yàlla loolu tam daa bokk ci ci ci ci yoonu morit murit bu ne daa war di def noonu daa waxuma murit waaye jullit bu ne jullit bu ne daa wara daa mat war di def noonu waxuma murit jullit sax waaye daanaka nit rek nit ku ne sax noonu la war di def nit ku ne dafa war a ne dafa di jariñ ñeneen ñi njariñ loo xam ne du ci séentu luñ koy fay du ci séentu luñ koy fay murit bi da cee raw moo tax murit dañ koy tàggat ci loolu muy liggéeyal liggéey muy liggéey boo xam ne du séentu luñ ko cay fay loolu dañ ko ci tàggat liggéey booba nag bu dee murit bi dañ naan lépp dañ koy dugal ci liggéeyal sëñ bi rawati jamono yi nga xam ne euh, nekkatul ci sunu kanam liggéeyal sëñ bi dañuy dugal lépp buñ nee nag liggéeyal sëñ bi moom it jëmmi liggéeyal sëñ bi kenn du ko soppi kenn duñ dem ba ne jaratu ko matu ko ajoowuñ ko déedéet waaye nag nuñ koy defee nag nuñ koy defee moom mën naa soppi ko nuñ koy defee mën naa soppi ay jamono ba tey ci mbay mi lañ ko daan defee ndax mbay moo nekkoon liggéey bi ci kaw gi lañ nekkoon mbay lañuy ñuy mën a def dara juddoo ca la cay juddoo ñu ko sëñ bi ci misaal ginnaaw bi ñu demee ci taax yi ay jamono dañ daan tàmbali def yi daayira di teg buñ tegee dajale jamono sàngam mu ñëw joxe ko waaye jamono ak béréb mën naa laaj leneen mën naa laaj leneen te leneen lii tam mooy rek li ñuy tuddee spécialisation mooy ñu mën a jàpp jàpp rek ne genn anam gii rek la di bàyyi di jaay di joxe rek la wala def daare di teg di joxe rek la waaye dañuy xool ku ne lam man ku ne lam man loo xam ne murit gi aajowoo na ko te man na ko mook ñam bokkal man loola buñ lëkkaloo lañ man buñ ci bokkee def dara mën nañ caa def lu amal njariñ lu amal njariñ murit gi mu doon seenub liggéey mu doon seenub liggéey ñeneen tam def ko ci seenub wàll ñeneen def ko ci seenub wàll dañuy wax ne sëñ Modou Moustapha loolu la doon wax da doon wax ne morit yi du ñàkk jenn jamono ñu am alal ñu am kàttanu yaram ñu am xel mu rafet ñu am xam-xam duñ ko ñàkk jenn jamono te daanaka nit itam du ñàkk yi yëpp daanaka ku nekk dana am lenn ci mu ne nag kon li war ma kenn ku ne lu mu am ci yii rek da koy indi ci am xam-xam indi xam-xamam ngir yàlla ci am alal indi ngir yàlla ki am xel mu rafet indi xelam mu rafet ci am doole doole yaramam indi ko ngir yàlla moom itam luñ ci soxlawoo rek ña ko am indi ko ñu def ko mu doon njariñu ñëpp boobaak ñëppay mën a xidma ñëpp koy man ndax ku ne am na lu man ci yooyu ku ne am na lu ko yàlla dénk ci yooyu buñ ko bëggee yamale ci genn anam nag dana ñu ko dul man dana ñu ko dul man am nay jamono daanaka dañoo jàpp ne rek joxe xaalis moom mooy mbir mi joxe xaalis joxe xaalis nag ci la waaye du lépp xaalis mënut lépp am na lu man waaye am na lu mënut te lu mënut am na ñu ko mën ci nit ñi kon ñooñu kenn warul leen a sóob ci jéem a joxe xaalis dañ leen sóob ci lañ man ñu di ko def ñu xaalis di joxe xaalis ñu am xam-xam di joxe seen xam-xam ñu xel mu rafet di ko joxe ku yàlla dogal mu boole ci lu ëpp lenn mën naa mën naa joxe lu ëpp lenn waaye daal buñ jàpp ne genn anam rek lañ mën a liggéeyale sëñ bi léeg-léeg ci misaal euh, bu bu lu mel ne xel koom xel koom xel koom am mbay la walla ay euh, góob wala yooyu nga xam ne ci liggéeyu mbay la daal liggéeyu mbay yooyu buñ koy santaane wax dëgg yàlla am na ñooñ jërul ñu fay dem jërul ñu fay dem ñoom lañ man nañ ko joxe ñaman man liggéey ba dem ñoom di ko liggéey am na ñi dëkk ci kaw gi ñoom di liggéey liggéey boobu nga xam mooy seen liggéey ñoom ñu di ko defal seen bopp buñ ko soxlaa na ñooña dem ñoom la leen fay yor nag ci misaal ñi am alal ñoom mën nañ koo joxe transporteurs yi mën nañu yóbbu seeni oto yóbbu nit ñi ci misaal waaye dañu jàpp ne nit ki daal fii ak demut dagg aw guub xam sax dañu mel ne koy rend ñoo xam ne bu ñuy bu ñuy bu ñuy góob dañu mel ne koy rend xamuñ ko sox sax ñu koy def loo nañ bàyyi ñi ko xam ñu def ko ñeneen ñi jàppale leen ca lañ am ñoom itam ca lañ man ñi am alal joxe seen alal ñi am ay oto yóbbu seeni oto ci misaal ci misaal waaye ñi am xam-xam am nañ ci wàll xamal leen li ñuy def lan mooy cosaanam lan moo lañ ciy jële yooyu yëpp kon ku ne dana am lu ci mën def waaye bu ñu bëggee ñëpp nag war a dem di góob daanaka yàqalante lay doon ndax am na ñu bari ñoo xam ne xamuñ liy góob dañuy yàqalante sax nag waaye bu ñu bàyyee ñi ko xam ñoom ñu def ko ñu ci des nag jàppale leen ci anam yañ ma ne ñoom itam loolu mooy spécialisation bu ñu war a def ci wàllu xidma ñenn ñu di def lañ man loolu nag mi ngi tàmbalee am sax nag mu ngi tàmbalee am mi ngi xaw a yàgg si ci daayira yi mi ngi ciy feeñ yenn daayira yoo xam ne seen liggéey dañ koy jëmee ci anam sàngam loolu spécialisation loo xam ne lu am njariñ la lu am lu am njariñ la kon wàllu googu itam foog naa ne lu soppi mën a am la nan la ñuy liggéeyee la sëñ bi buñ jàpp ne genn anam rek la wala ñaar wala ñett waaye lépp loo xam ne nit ñi am nañ cay man-man wàllu yooyu yëpp wàllu yu ñu mën a liggéeyale sëñ bi la ñenn ñoo ne seen man-man fa mu jëm nañ fa liggéeyale sëñ bi buñ ko fa liggéeyalee ci la seen liggéey di ëpp njariñ ci lay ëpp njariñ buñ bëggee fekk keneen ca wàll gam man liggéeyam du fa am njariñ ab jàngalekat jàngalekat amut xaalis wutu ko ndax wutu ko jàngalekat wutut xaalis ba koy am bu fekkee dañ koy séentu moom it ci ci joxe rek kon du du du doon jàmbaar mukk ndax mënut a doon jàmbaar ci kanam ab commerçant commerçant day wut xaalis moom kon mën na koo am jàngalekat wutu ko kon mënu ko am wala mënu caa am la ca kee waaye boo ne commerçant bi wut xaalis moom lañ séentu ci moom xaalis jàngalekat wutul xaalis xam-xam lay wut nañ sa nañ séentu ci moom xam-xam toppe ko noonu ñi nga xam ne. doole yi doole yaram lañu am ñoom it wàllum njàng demewuñ ca noona wàllu xaalis demewuñ ca noona moom it ñu leen di nege foofa sax bu ñu soxlaa loola ñu xam ne ñoom fii lañ leen di soxlaa waaye bañ leen a gan ak ñoom it ñuy jéem di joxe te amul ñu jox wax ak yàlla dañu la war a jox dañu la war a dimbale ñu war a dimbale waroo ko waroo ko laaj euh, kon loolu ci wàllu xidma bi la ni nga xamee dañ koo war a dañ cee war a dugal spécialisation ba ñenn ñu ne daal seen xidma ñu jëme ko ci wàll gañ man ba tey ci xidma bi tasaare tasaare wooteeb sëñ bi ci xidma bi la bokk xidma tasaare wooteeb sëñ bi ci la bokk sëñ bi bi muy wax xidmaam moom ci yonente bi boole na ca loola moo tax ma jàpp ne nun tam sunu xidma bi ñu koy defal loolu war na caa bokk muy tasaare ab wooteem tasaare ab wooteem bu ko defee nag loolu kon daa war a bokk ci xidma bi euh, mi ngi am xay na waaye mënees na koo gën a nos manees na koo gën a nos mooy benn benn yaa ngi koy def ci seen coobaree bopp di jéem a tasaare woote sëñ bi di jéem a leeral njàngaleem sëñ bi ci seen coobaree bopp ci seen góorgóorlu yi bopp waaye baaxoon na nag murit gi ci boppam def ko yitte murit gi ci boppam def ko yitte mooy mooy kilifteef kilifteef gu mag gi def ko yitte loolu nag seetlu foogu ma ne amagun na foogu ma ne amagun na kilifteef gu mag gi def yitte tasaare wooteeb sëñ bi sëñ mag bi dafa na ko yitte moom ci la doon tàggate ay nit defar leen bañ man defare mu yebal leen ci ay barab barab yi ñuy dem dañ koy tasaare ab wooteem loolu mu doon na ko def waaye seetlu ma ne nag daf dafa wëy seetlu ma ak wëyam daal te nag lu jaadu la lu jaadu la kilifteef gu mag gi def ko yitte bu ko defee yitte dana tànn ñu ko man dénk leen ko ñu ko man ñu ko man ci wàllu xam ñu ko man ci wàllu rafet xel ndax tasaare boote ñaar yooyu la laaj laaj na xam laaj na rafet xel ñu yàlla may ñu am ak xam nag xam moo bi dëgg dégg mooy lan am xel mu rafet itam muñ mën a jëfandikoo ba mën a jàllale woote bi jottali ko ñeneen ñi bu ko kilifteef gu mag gi dafee yitte dana sàkk kuréel boo xam ne ñu mel noonaa cay nekk mu dénk leen ko lu mu laaj ci ay jumtukaay itam mu mu yembalal leen ko loolu jàpp naa ne lu war a mën a dugg la ci ak soppi ci biir xidma bi ci biir xidma bi ci ni ñuy xidma ni ñuy xidma mooy kilifteef gu mag gi def yitte tasaare wooteb sëñ bi ci anam gi ci anam gi ma waxe ba tey ci cëslaa yi fàggu lu lew fàggu lu lew mooy liggéey liggéey boo xam ne nit ki da ci séentoo dara da ci séentu dara mooy da ci day am lu day bëgg lu mu ca am lu mën a suturoo waaye nag sëñ bi lim digle moom diglewut liggéey rek waaye fàggu lu lew la digle fàggu lu lew mooy liggéey boo xam ne la nga amee day lew lay tax la nga amee lew nag daa am looy tënku loo xam ne wax na ko sëñ bi jàngal nanu li nu war a tënku bu nuy fàggu ba lañ cay amee mën a doon lu lew kon loolu ci cëslaay yoon wi la bokk amul jenn jamono juñ naan mën naa soppi waaye ni ko waxe woon nag nan koy defee nag loolu moom soppi mën na caa am ni ko waxe woon ca njëlbéen ga mbay la woon ndax moom moo nekkoon liggéey bi ca kaw ga la nekkoon buñ demee ba nekk ci taax yi mën naa doon leneen mën nañ cee def leneen sax loo xam ne du rek euh, nit ki fàggul boppam waaye sax dimbale kiy fàggu dimbale nit ki ba mu mën a fàggu moo tax euh, li ñuy tudde investissement investissement mooy kilifteef yi boobu nag kilifteef yi nag mooy kilifteef gu mag gi ak kilifteef yi ci ginnaawam kilifteef yi ci ginnaawam mooy kilifteef yi ci kër yi li ñuy wax kër yi kër gu ne am na kilifteef yoon wépp am na kilifteef kilifteef gu mag gi ak kilifteef yi ci ginnaawam yépp ñuy def investissement def investissement investissement ci wàll yëpp wàll yëpp mooy wàll yi nga xam ne yëpp euh, yu dagan la te mën naa jur mën naa jur man naa mën naa meññal mën naa meññal alal ñu di ko def daawuñ ko def waaye lu ñu war a mën a def la mu dugg ci biir euh, fàggu lu lew boobaa lu muy jur benn dana mën a dimbale nit ñi ci ñu am foo ñu fàggoolu leew investissement bu ñu koy def mooy dana am nit ñoo xam ne danañ mën a danañ fa mën a ñëw di fa fàggulu lew dañ fa mën a am fu ñu fàggool dañ fa mën a amee liggéey ay entreprise bu ko defee entreprise bu amee rek mooy ay liggéey dana am bu ay liggéey amee kon mooy nit ñi muy ndaw ñi muy njaboot gi danañ am fu ñu mën a liggéey man faa fàggoolu lew loolu lenn la waaye ñaareel bi it investissement yi bu dee am dana mën a tax ba yenn sumb yu mag yi nga xam ne kilifteef gi dana ko sumb wala yeneen kilifteef mën koo sumb ca fañ nekk sumb yu mag yooyu mën a am lu leen yor lu beru lu leen yor lu beru mooy mën a am foo xam ne alal ju leen mën a doxal dana fa juddoo te duñ ko wékk rek ci kilifa gi ndax day investir fenn rek lay jóge foofa nag mën a yor sumb yooyu loolu doxinu jamono la talu yi wooye falal kilifteef gi la itam ndax kilifteef li ne ci moom bari na bari waaye bopp bu ñu bëggee lenn lu ne rek bis bu ne day ñëw ba agsi ci moom di ko wax aajo loolu dana xaw a diis waaye bu ñu defoon investissement nag bañ xam ne sumb bee moom entreprise bi wala lii ñu def fii lu fay jóge ca la jëm nga xam ne boobaa kenn du ñëwati ci kilifa gu mag di ko wax lu jëm ca loola bu ñu ko defee ci anam yu wuute rek danañ ko teggil ay ay kii yu bari kilifteef yi topp ci ginnaaw mi tam ñoom it kilifteef gu ci nekk fa mu nekk moom it mën faa def lu mel noonu ñaar yooyu ñaari njariñ yooyu ñu ngi ci danañ mën a may nit ñi ay liggéey wutal leen liggéey yu ñu mën a fàggoo lu lew waaye danañ mën a amal ay euh, source de financement yoo xam ne naal yu mag yi dana leen mën a yor ba duñ def lu soxla rek di ñëw ci ñëw ci kilifa yi euh, moo aju ci kon sëriñ Modou moo aju ci cëslaay am na lool ba tey ci lu sot am la xëy na moom dugg ñett yooyu moo xam wala xaw fu ma ko ciy dugal ci reen yi wala ponk yi wala cëslaay yi waaye mën naa doon mbirum boppam mooy rek njiit li njiit li njiitul murid gi ak njiit yi njiit yi topp ci ginnaaw mooy kilifteef gi rek kilifteef gu mag gi ak kilifteef yi topp ci ginnaaw li ma ko waxee léegi ni ñuy doxe daanaka mooy lépp rek dañuy ñëw ba ci kilifa gi ndax daanaka amul luñ féetale luñ féetale ñenn lépp di yem ca ñoom luñ cee lijjanti ca ñoom lay yem kilifa gi xëy lay agsi ci moom lu doon lu lu lu du doon bis bu ne daal dana sore te lu ko jarlee doon loolu nag ab nos moo koy maye waaye ni ñu def nii moom ni ñu doxee nii moom mooy daanaka lu ne rek day ñëw ba ci kilifa gi ku ne lu bëgg daanaka day ñëw ci kilifa gi bu dee kilifteef gu mag gi la bu dee kilifteef gi topp ci ginnaaw itam noonu la def ku ci ne fam nekk moom it lu mu ciir ba ci kilifa gi te mënoon naa am nos boo xam ne nag kilifa gi danañ ko noppal ci yooyu ndax mën naa am ay yitte yu yu yu gën a kawe yenn yi daal détail yenn yi war naa bañ war naa mën a bañ àgg ci kilifa ab tos ab nos kon la rek nos boo xam ne ay kuréel taxawal ay kuréel yoo xam ne daal dañuy jàppale kilifteef yi kilifteef gu mag gi ak kilifteef kilifteef yi topp ci ginnaawam kilifteef gu ne am kuréel bum mu boo xam ne da da leen di tànn bañ yayoo ko ca xam nga ca xel mu rafet na ca maandu ga yépp daal lañu war a xool lépp ñu xool ko ci ñoom tànn leen dénk leen ci lu leer lañ leen dénk bu ko defee lu bari ñoom ñoo koy waxtaane waaye du ne lu jóg rek agsi ci kilifa gi moo xam kilifteef gu mag gi la moo xam kilifteef yi topp yi topp ci moom la euh, loolu daal te loolu mu ngi duggal ci diisoo la dugg te sëñ bu mag bi daan diisoo sëñ bu mag bi daan diisoo misaal mi joxe léegi rek ci bi tubaab bëggee ubbi école Mbàkke dafa diisoo lum daan def da ci daan diisoo ak ñamat a diisoo manees naa samp nag ay kuréel yoo xam ne dañuy taxaw taxawaay boobu wala sax ñu taxaw taxawaay ak yu taxaw moom kuréel yi mën naa bañ nekk mën naa bañ a doon benn ay kuréel daal yu am yi taxawaay yoo xam ne ñu leen sampee dañuy xam lañ séentu ci ñoom ba noppi nag ñu xam ne lépp ñoo ko war a lijjanti ñoom seen bopp duñ def lu jóg ñu bëgg a ñëw ci sëñ bi nit ñi itam duñ leen jéggi di ñëw ci sëñ bi di ñëw ci kilifa gi loolu foog naa ne lu mën a am la ci soppi ci wàllu kilifteef bi walla wàllu doxaliinu kilifteef gi loolu daal kon sëñ Modou xam naa ma des na cee déggee ne kon murit gi daal am na am na yu sax yoo xam ne kenn du ko laal kenn du ko laal kenn du xalaat mukk soppi jëm ca waaye nag am na yooyu moom nag soppi mën na caa jëm léeg-léeg soppi war caa jëm léegi soppi war caa jëm lay waral soppi jëm ca it mooy benn béréb a ko laaj wala jamono ko laaj béréb moo laaj soppi am ci walla jamono moo laaj soppi am ci xam nañ ci waxtaan wit it lu soppi war ca jëm ku ko ca jëme mën naa dem far ba la fay nekk du du du lam doonoon waaye leneen lay doon leneen lay doon mooy koo xam ne taxawut taxawaay bu dëgër waaye lu jóg yóbbaale ko day mujj far du amati du amati leneen lay doon waaye ku bëgg itam yi soppi war a jëm mu bañ caa jëmale dara soppitam loolu ak tëju la koy jural ak taxaw ak des ginnaaw des ginnaaw danañ di wax ne sëñ bu mag bi nee woon na bu àddina soppi ko ci lu naqariwul yàlla na ngeen soppi ko ànd ak moom ndax bu ngeen ko defut dana jaar ci seen kaw jàll daanaka lii tënk na tënk na lépp mooy fa soppi mën a ame fa soppi mën a amee bu soppi jotee na ngeen soppi ndax bu ngeen soppiwut dana jaar seen kaw jàll mooy dangeen di tardé dañuy dem bàyyi leen fi dañuy dem bàyyi leen mooy lu mel ne li ñu doon wax léegi rek téeméeri at ak ñaar téeméeri at ak fukk fukk téeméeri at ak fukk ci ginnaaw xalaat ba suñ mbàkki bu sa joxe woon ñu toogaat téeméeri at ak fukk ci ginnaaw bi nun àgguñ ci xalaat boobu kon dañoo del dañoo dellu ginnaaw daf ma dañoo dellu ginnaaw dal nañ ginnaaw téeméeri at ak fukk ba tey di waxtaane ndax ndax école tubaab war na fee am wala déet te sëñ bi nangu woon ko fukki téeméer ak fukk ca lu jiitu kon demee dana dellu ginnaaw noonu téeméer ak fukk bay waxtaane loo xam ne booba lañ ko doon waxtaane te bañ koy waxtaane ñoom am na nuñ ko tërale ba nangu ko kon mooy ñàkk soppiku fa soppiku war a amee li muy jur mooy des ginnaaw li muy jur mooy tëju li muy jur mooy tarde li muy jurit mooy sonal sa bopp sonal sa bopp sonal sa bopp misaal nañ ko léegi ci ki sumu yaay dàllam ba noppi di di patamte ci naaj wi lu ko jar kan moo ko sant mooy daal taral ci lu ko jarut fu mu mënoon soppee la mu bañ a soppi moo ko jural coono boobu sëñ Modou loolu daal la jàpp ne na mënees na ko euh, duggee ci waxtaan wi mën naa itam tolloo naag waxtu bi ma waxoon maa ngi jégalu ñëpp di sant ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa jërëjëf ci waxtaan wu am solo woowu mbokk yi xam naa lu ma ci teg mooy ñoo ko déggandoo yaakaar naa la doy na ñoo ko déggandoo waxtaan wi leer na mucc naa yit waxtu yi tamit da cee yem. ñaari ponk la suñu Cheikh doon waxtaane wala benn ponk boo xam ne dafa séddalikoo ñaar ngir ñi nga xam ne ñoo mujj ñëw li nga xam ne ci yoonu murit mënees na koo laal ak li nga xam mënees koo laal di nangoo soppiku ak nanguwuta soppiku li nanguwuta soppiku nag ni mu ko waxee mooy li nga xam ne buñ ko dindee leneen la ñuy wax waaye du ñu waxatu murit ndax du ca mu wax ne ay reen la ak i ponk ak i cëslaay bu ci nekk mu joxe moo cay ban sopp gi nag fenn dong la mën a jëm kon mooy aw doxiin la ak nee si defe waaye jëmmi la nga xam ne mooy nday joom des ko laal ndax boo ko laalee kon la leen lay doon mu jeexale ko loolu ku baax ki wax jàpp naan dooy na sëkk yóbbal suñu saa yi ñu ngi koy askan la wax ju xaw a jege jooju ñu wax ne boo nekkee ci jamono di dox bëgg sàmm sa diine ngay mel ne ku yorob oto di dawal ci tali tali bi mën naa nekk bu tali ñareet mel ne autoroute ngay daw euh, loo bëgg te wàññi sa tànk mën naa nekk boo xam daa ami pax am ay matabaat moo li ñu ay doo daan ay yu ni mel ngay daw ndànk def ndànk keroog ngay àgg li am solo nga ngay wéy di dox jëm fa nga jëm waaye bul dëgg mukk ci àdduna ndax ñàkk dem ñàkk dox moom mooy li mënta ñàkk waaye nee si doxee nag yaa koy xool ni nga xam ne la ko jamono indee loolu yaakaar si Cheikh na euh, ngir bañ a yokk lenn rek loo xam ne day gàllu day day day yàq maanaay wala boog day dëngalaat li nga jubaloon kon yaakaar foofu laa ci yem di santaan mbokk yi nga xam ne ñu ngi topp waxtaan wi yëpp moo xam ñi fi teew wala ñi koy topp ci yeneen chaîne yi moo xam ay site internet la wala bokk ay télé wala ay rajo la Lamp Fall TV euh, télé Jumaa ji KM TV ba fàttali Bichri Al Khadimiya ak Lamp ak euh, waxoon na Lamp Fall léegi ak mboolem ñi nga xam ñi ngi ko topp ci chaîne YouTube yi di sentaat santaat di gërëmaat di leen doxaat euh, di leen jox dig daje ci lu dara ak weneen waxtaan suba incha allah ñu wéyal waxtaan yi ak waxtaan woo xam ne sëñ Ahmad Samb moo ñu koy defal di ci jàngat euh, xasiid ak borom Tuubaa googu tàmbalee xaalu li yarkan euh, kon ñu ngi leen sant leen gërëmaat leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu